interne boobu nga wax ni que y a un problème bo xamanteni dañ ko bëgg régler manam ñom ci seen biir ñom ñi nek impôt yu domaine est ce que loolu taxul tay ñu gis ay fuite de documents parce que gis ben document bo xamanteni tay tey ñu ngi doon wax fi ci aéroport Léopold Sédar Senghor un terrain de 250 cent cinquante mètres carrés boo xamante Bassirou Diomaye Faye mo cédé bay bi à 30 millions mhm. ki nga xamanteni tay moy ministre des finances di Cheikh Diba mhm. ñu gis Ousmane Sonko son terrain bi nga xamanteni mo moo nekkoon CICES ñu génné document bi sur 249 euh, cent quarante mètres carrés mhm. El Malick Ndiaye ñu génné document bo xamanteni c'est 169 soixante neuf mètres carrés bi nga xamanteni Mamboy Mame Boye Diao moom moo ko ko année mhm. ci bande filao mhm. bon je trouve que c'est pas c'est c'est injuste ben ko ñoko mom mais nak euh, comme je dis niki ki euh, liguey fenn am prérogative pour mën am yenn bokay def aussi nga de façon rationnelle d'accord motax actuellement parfois boy liguey fenn def la ne defal lu rafet parce que l'histoire mën la rattraper d'accord bon dans ce cas de figure là man dans un cas bi ni nga xam dañ ko poser cas boo xam ne la injustice bu ñuy yàgg jooy la injustice bi ñu commencé ci depuis le temps Abdoulaye Wade ñëw ba ci Macky Sall ñëwaat tey ñoom ñoo ne ñoo ko te ñoom ñu neen ñee ne dañoo bëgg régler injustice boobu mais am na yenn situation boo xam ne ñi ñaa leen koy génneel tey loo xam ne c'est pas catholique ñu leen koy gisal mais nag dama jàpp ne sooy ragg problème bi su naree continuer impo inspecteurs yi ne bi ne impé yuuxu dana jëf nga foogewul tey ñu ñëw ci beneen boo xamante ne mooy attribution titre wala bàyyi ñu gis ni que am na ay commerçants yu bëri yu on peut prendre le cas de Ouest Foire. y a des maisons yoo xamante ne ay centaines de millions lay jaay tey kër yooyu mënoo garantir banque parce que amul bail amul lii nga xamante ni titre foncier. ñu gis ni que titre foncier ak bail ñenn rek lañ koy séddee maanaam mooy les hauts fonctionnaires ou bien les hommes d'affaires muy businessman ni ñii di promoteurs immobiliers mhm. ban conflit d'intérêt mo am diggante wa impôt domaine yu joxé lolu ak ñi nga xamanté ne ñoom lañ koy jox parce que tierce personne lañ koy jox ñoñu ngay gis ñuy déposer garantie banque ñu jox leen ay 5 milliards ñoñu kessé ñooy liggéey alors que so leen compté won tay ci Sénégal matu ju 200 personnes mais kena xamone titre de titre titre euh, euh, boo yooyu ñu joxé titre yooyu ñu koy joxe mm-hmm. tey joxoon ko population Sénégal bi danoon tax sa tay Sénégal dana gën dox parce que am na ñoo xam ne ñu ngi bëgg a tabax seen kër mënuñ ko tabax tey bu amoon tey baay boobu mën nañ ko garanti banque defaraat seen kër am ci benn business bi ci liggéey ah. loolu économie la dafay doxal économie mais jël baay bi remal ko ci benn cercle cercle ñetti nit homme d'affaires politicien ak haut fonctionnaire ñett ñooñu daal ñooy dugal baay même par trois euh, prochaine réunion SECOT mooy commission de contrôle des opérations domaniales mhm. ñoom ñu réuni deux fois je pense si at bi mhm. ñu xool seen i gaayan taf yëngal ku Mais et puis, ce qu'il faut déplorer, Tange, on est au 20e siècle, 20e, 20e 22e siècle. Ouais. Euh, Sénégal, Funtoni, on est 17 millions d'habitants. Nous avons 17 millions d'habitants, ben Rio, Sénégal, ben, euh, ben, ben, ben, guichet, moi, pour déposer bail. Mais Dakar. ben guichet moo am si Sénégal bail. pour déposer bail Dakar. su ma dëkkee pour déposer bail. impôt domaine ñu ko ça prend combien de temps. mais parfois am na ñoo xam ne ñu déposé ba seen kër ràpp ëpp na 10 ans mënuñ génn kenn mënu la wax bi lay génn mais tey lan mooy régler fléau boobu mais lu ko réer mooy il faut ñu tas ko c'est-à-dire ñu yi quoi ñu may région yi nga xam jël ñetti région ñeenti région wala ñu bokk benn cour jël région yi ñun leen fii ngeen guichet bi ngeen bokk jël benen ku tapé ñu région bi ngeen ne mais jël lépp à ko Dakar. est-ce que beaucoup de li nga xamante ne gestion bi. non mais monopole dañ ko dépassé dañu dépasser phase phase bobu actuellement la demande est plus forte. d'accord que l'offre donc il faut décentraliser les choses. légui tay par rapport ak ñi nga wax di que ben cercle ñooy utiliser.

la loo expliquer expliqué gis ko xam ko 4 hectares 5 hectares mu génne baye même pas un an gis ko xam c'est un particulier déposé na bàyyi depuis 2020 wala depuis Abdoulaye yéeg ci rew mi ba mais mënu am mënu am ba mënu am bàyyi bàyyi mënu génn loolu foo ko teg loolu loolu kon baye dañ ci business c'est ça légui nak tay li nga xamante ñom ñoom ñoo nekkoon impôt et domaine ñu bëgg indi gouvernement de rupture est-ce que tay tey mënuñoo njëkkee ci li nga xamante manam maanaam ubbi li nga xamante moy dépôt de dossier de baye yi pour ñëpp mën ci jot que par rapport ak ñi nga xamante ñom lañ koy jox non je pense que loolu mooy idée idée bi voilà tay ñi nga xamanteni tay ñi nga xamanteni ni ay commerçant lañu war nañu am seen kër mën a déposer léegi li nga xamanteni ne benn garantie la banque ñu mën a financer beneen euh, emploi boo xamante ne day créer li nga xamante ne mooy emploi ci jeunesse bi mm-hmm. au lieu que ñu koy euh, concentrer ci ñi nga xamante ne mooy homme d'affaires parce que tey soo xoolee seen Ben benn promoteur privé <coughs> moom la ñuy octroyer moom mooy am ay financement moom mooy tabax ay immeuble moo koy jaay à des coûts excessivement chers moo tax ma la soubre dañ ko def business waaw tey ma jox la benn exemple tey bàyyi tey am na entreprise yoo xam ne seen patrimoine yëpp ak seen matière première moo nekk suuf dañuy jël suuf bàyyi parce que bu ëllëgee bu ñëwee am ay torof torof ñu mhm. dem jël suuf dem tay la banque banque jox leen seen xaalis ñu financé bi ñi fi aak yi moo suuf bi mhm. ubbi deux ans trois ans dem jaay ko wala nga tabax étage jël benn gardien teg fa benn balekat luy ko mu lay indi apport mais les questions créées dans dans lan lañ lan ci économie loolu mooy li ma la mën ki mais xoolal entreprise yi nga xamante ni bi tey bu ñu leen jëloon suuf si jox nañ suuf si jàppale tey je préfère nga jël benn entreprise jox ko 5 hectares mu exploité ko dem nga soo jëlee naa la jox nangam hectare nga exploité ko soo ko exploité après nga jël hectares yooyu nga na jël nangamu xale ñu si liggéey sa kii bi mais état bi su ko defaloo na nekk genre emploi état d'accord ñu ngi liggéey mais tey jël di ko jox ay maanaam benn cercle lañ topp daal di leen leen arrangé quoi maanaam ragal ma ma ragal la d'accord c'est ça tey maître Tcham, nous gis que que syndicat impôts et domaine. Nous gis souvent que ci beaucoup de ku sa déclaration de patrimoine nous avons tant de mètres carrés nous avons tant de mètres carrés syndicat bi moo est-ce que le syndicat a le droit pour approprier ay hectares yoo xamante ni ñoom ñoo koy séddoo alors que nee nga domaine la boo xamante ñun ñëpp effectivement bon je pense que ce qui souffre, parce que état bi dañ ko mhm. parce que l'administration c'est le bras armé de l'état mu jël suuf si nag jël créé lu ñuy wax impôt domaine entre administration bi ñu impôt domaine na ko saytul mu suuf si toppatool mu suuf si yaa koy régulariser. waaw lépp li kii di suuf ci réew mi yaa koy toppatoo mais kanaa bu. mais toppatoo si këyit suuf si mais ne veut pas dire que ngi jox la suuf si nga war ko accaparer woo mais je pense que c' était peut être mën na nekk genre erreur de de de du régime de Abdoulaye Wade peut être moom temps boobu lañ créé lu syndicat bi. ñu am ci dem ci dox ci peut être fëgg ci taab ñu am seen quota. mais je pense que aussi même je me xalam njësi jaay yu nit ki boo liggéey ci kër nga a am. ci liggéey foo mais nga mën am foo dëkk normalement mais am looy business

bu nekkee loolu ko loolu moom doy waar parce que. Euh, je pense Il l'a dit en public ci euh, TFM émission Jakaarlo. Mais mm. moom Ousmane Sonko ren ñoo dugg ci bureau Ousmane Sonko yëkkati ay terrains, ay parcelles teg ko ci loxoom pour mu jaay ko. loolu moom mais jaayul espace vert mais ay parcelles la doon jaay. loolu moom doy na parce que Ousmane Sonko en tant que bu nekkoon booba booba booba fonctionnaire la. waaw fonctionnaire moom parce que yoon dafa ay fonctionnaire mu nekk businessman. fonctionnaire amoon na ne fonctionnaire pare nekk am dafa nekk fonctionnaire pare am beneen liggéey. boo xam ne da lay génne ay ressources. loolu yoon dala ko tere mais nag su nekkee nag su suuf fan la jógee ndax waa impôt ñoo ko moom mu jël jaay ko pour waa impôt domaine moom kenn moo ko moom. turam daal lañu cité Ousmane Sonko cité wuñu syndicat loolu moom vraiment c'est gravement bu nekkee am na moom c'est vraiment grave ci loolu ci bopp réew bi est-ce que am yaakaar que lii nga xamante ne mooy litige foncier ñu moom ñu mën ko régler ci seen régime bon man bon Ousmane Sonko ak le président le premier Ousmane Sonko. li war a moy lam doon xex ci opposition bi ba ñëpp di ko xeexle. ba ñëpp di ko merlé ba tay yalla indi ko tey ñoom yor pouvoir bi. je pense que logique boobu ci la wara dess mi quoi mi lan. injustice bi mu gis ne Macky Sall daf ko tegoon waa réew mi wala ba xeex Macky Sall mu jógee fi je pense que injustice boobu noonu mënoo xeex ñii ñi tey liy sagu nit ñi di sagam mooy ñu gis ne tey si suuf suuf noonu ñu doon caxat caxat yi ci temps mu gis ne loolu Sénégal dala nañ seen ak seen yelleef alal jooju ñu doon caxat caxat tey moom bokk na ci nga xam ne ñu ngi mais su nekkee tey moom lañ dégg ne moom moo ko jiite loolu lay xaw a tey xel

muy seen suuf mënoon ko utiliser te utiliser ko alors que moom am na ci 30 millions yoo xamante ni de 2018 en 2024 6 vingt quatre six ans. Mhm. mën nañ jàpp ni 30 millions yooyu mën na ko liggéeyal sax lu ëpp 300 millions. effectivement donc loolu tey naka la ko droit gisee. bon lu ko gisee mooy comme ni ma la bu nekkee ay titre de ay boo la am ça dépend ci nature titre bi. xam nga titre dafa bëri mën na nekk ay TF. waaw mën na nekk ay bail. parce que bail bu ñu ko defee. non bail la waaw bu nekkee bail moom état du Sénégal moo ko jox bail. voilà su ko defee jor-jor yoo xam ne am na droit mu séddee ko. waaw loolu yoon état Sénégal moo ko jox. man léegi Ousmane Sow du sama problème mais ñi ko ñi administration domaniale bi ko jox kayit ba régler ko nako ya mom li yëpp keur yeb ya ko mom ma administration domaniale mooy sama problème impôt domaine boobu mooy sama problème mais pas Ousmane Sonko d'accord voilà juste pour guen ci walu foncier bi nak lañu mëna def tay pour mëna régler li nga xamanteni moy définitivement au mm-hmm. Sénégal li di affaire u scandale foncier su dé tay am na ay réformes yoo xamante ñu ngi koy organiser ban loi lañu mëna jël ba nga xamanteni daf koy régler définitivement ba nga xamanteni ni kenn dootu fi dégg affaire u foncier ci Sénégal parce que affaire yi foncier bi li ma gis ñi sàccuñ bàyyi sàcc sàccuñ boy sàccuñ titre foncier. ci ci ci ci domaine national la jël terrain. ok domaine national jàmbur yi. loolu mooy problème indi woon fay Ndingler. waaw lool la donc ben le procureur jóg di jël le procureur jóg di japp ñi nga xam ne ñoo jël domaine national di jaay. d'accord parce que procureur amna base légale bu mu jappé ñoo tëj leen ci kasso gi. suñ ko jàpp mi commencé won bari

mais loolu soo ko defee est-ce que duñ ko politiser ndaxte Sénégal lépp la ñuy politiser. waaw waaw tey soo bokkul ci benn base politique wala militante politique duñ la jox. mais man DRT baa ngi nii am na ñoom dañu déposé seen CV am ñoo xamante ni ay responsable politique lañu ñoom ñooy jël seen 100 personnes 300 personnes joxoon ko ki nga xamante ni mooy Abdou Ndéné Sall ñooñu la ñuy recruter. mais man je préfère nga jël 200 parcelles de 150 jox ko indi sax ñu jox leen ay sénégalais. mais moo ma gën a nga jël di ko jox ay homme d'affaires. waaw nga jël ay 5 états 10 états de côté séddale ay homme d'affaires. d'accord au moins jox nga nit fu mu dëkk te génnewul xaalis bu bëri. d'accord parce que boo xoolee délibération mi lay jox ak bi nga koy régulariser bay am bay bay déposer bay li ngay dépenser ci xaalis mat sax francs d'accord que mo gën nga may jël 10 dix hectares ci catimini jox ki 20 jox ki 15 ñu jël ko business dëkk bi d'accord c'est ça d'accord people